الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ginnaaw bu sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy xaar noo ngi koy kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom la jagoo ñu ngi julli di sallal ci Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ñuy ñaan jàmm yàlla ak xéewalam ak muccam yàlla na yàlla dëkkee def ko mu dottee ci kaw saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan suñu borom boo ñu defal tawfiq ila yawm al-qiyam dañu ci daje ci daje yu am solo yooyu nga xam ni insha allah mooy wax ci bokkaale yàlla ak ya nga xam ni loolu lislaam bi bañ te taxaw ci ko woote bu mag woo wala xaalam bu rëy woo wax naa ko gisul benn ñaar mooy gaal yonent yàlla noor ci jamono suufaan laata ka di wax ku ko def na ci wér ci bopp insha allah dana mucc bu yomal ko yàlla ak lu mu am am ci ay bàkkaar bu soobee suñu borom na ko jéggal waaye képp koo xam ne def newul bàkkaar la def ci ay xolam ci ay mbir yu mën a ëllëgee yàlla mu jëral ko doon aadama kooku day amal lu mu indi ci aw ci yàlla mu baax baax kooku pertaar yi dikkal na ko comme ni ko xutba ya wees ñoo ngi tàmbale woon waxtaan ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala ak musiba yooyu yi nga xam ni bokkaale am na mbokk yi bokkaale mooy tooñ bi gën a rëy du doomu aadama yëg ci kaw suuf di gën di ak borom xutba yooyu moo ngi jëm ci xaaj boo xam ni borom xam-xam yi dañ koy xaaj bokkaale yàlla ci bu ndaw ak bu mag te man sax damay wax ni ñaar yëpp yu mag laa leen tuddee ndax gan bi ci moom mooy commencé mu yàlla subhanahu wa taala moo tax lépp lu ko tax dafay nekk lu mag war xam-xam lislaam yi ci laa ko lislaam dañuy xaar bokk ala yàlla ci ñaari xaar xaar bu njëkk mooy ak shirkul akbar muy bokkaale bu ndaw am nay am misaal xaajal ñaareel mooy bokkaale bu mag ginnaaw bu leeree ni yëpp dañuy di dugal ci bunt bokkaale ma ndax fi mu jëm ci moom mooy borom subhanahu wa taala te kooku ko màggal borom bi subhanahu wa taala bokkaale ci moom daf koo bañ daf koo tis waaye rawatina bokkaale yi nga xam ni kon ñeen ci borom xam-xam ne lañ tuddee bokkaale ma bokkaale ma bokk na ci yi koy wund wala yi koy wane mooy nit ki gën ab yàlla wala jëm nit jox ko lenn ci biir yàlla subhanahu wa taala moo xam daf koo wax moo xam daf koo wax ci xolam moo xam daf koo jëf nit ñi dafa gën a wóote am na yoo xam ne lan la tax ñoom dañ koy wax dañ koy dund am na koo xam ne daf koo dund rek ma la yéene waaye am na koo xamante ni moom ci sikk sàkk la nekk ñooñu yëpp lu gën a ni ñi nga xam ne ñoom dañuy jël ay daa di ko def doomu yàlla subhanahu wa taala saalisa salaata mooy ñetteelu ñett bi mooy kan Mariam doomu Aïssa ak sunu borom muy ñetti ñetti yàlla bi nga xam ne léeg-léeg dañuy dañu jël ab bant ba rëdd ko def ko tolloo mag yi ak gan ah yàlla bàyyi bi ak doom dañ koy sell ba fi ñu koy waxee taala allahu an dalika uluwan kabira wallahi xamal la ak ñàkk yàlla ñàkk yàlla mooy loolu ndax doomu aadama bu xamoon borom bi subhanahu wa taala li mu bëgg ci moom ak li mu bëgg ci mu jafe li mu bëgg ci moom ci yiw li mu koy dawal ci ay musiba dama wax ni kàddu yooyu ëpp naa téere ci kër yi saburat kalimatan taxruju min aqwalihim in yaquluna illa kalima kàddu yooyu koo xam ne ay laaj la muy jëlee ci kër yi moom loolu beneen bi yi nga xam ne ñoom loolu euh, la ñuy wax almajuus mooy yi nga xam ne dañuy jaamu ñoom dañuy wax ne dëgg la sax séddale bi sax moom amaan na li ci yàlla lay jëlee waaye lépp loo xamante ni mooy lu baax ak luy jëriñ ñu bàyyi ko ci leer bàyyi ko ci yàlla ñu bàyyi ko ci leer ndax leer daal ko waaye lépp loo xamante ni mooy lu lëndëm ak lu ci lu sànni lu bon ah ñu ngi bàyyi ko ci lu bon lu bon ko sànni boo ko séddale bi séddale bokkaan la wala ñi nga xam ne ñoom dañuy jël ay ànd di ko def ci jéem te defe naa fii suñu réew am na da ngay dégg ay yoo xam ne naan biddew sàngam bi saa bu bàqee jamono ji ci tudd nangam ngay doon biddew sàngam kat moo yar nangam biddew sàngam moo yar nangam bal am ci yoo xam dañoo dem ba dañoo jàpp ne biddew yi gën a bare am na ci yoo xam ne ñi xaaj lañu doxee ñoo ko doon ñoo yore taw bi ñoo yore wërsëg bi ñoo yore nangam ba léegi xattan ay suñu ko wallahi nit koy gënee mooy wuute ndax léegi yan la ñuy firi day fekk nit ñi soppi nañ tur bi soppi nañ domaine bi di gën a moderniser bi waaye daanaka lépp rek benn la bokk na ci xutba yooyu mooy li ma leen digloon su xutba dee baatu ñi nga xam ne ñoom dañuy lépp seen xol yi ci ay bàmmeel jàpp ni bàmmeel yi am na njëriñ lu mu mën wala la am na ci ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ni ruuxu daal baax yi seet yi faatu am nañ aw doxalin bu man ci kaw suuf dañuy waxal ci kaw suuf dañuy defar loolu yaakaar naa fii ma taxaw ci kawam waxuma lu dee waxuma it luy jokkalaat waxuma loo xam ne daa jar coono bu rëy mën koo dégg déedéet am na ay nit yoo xam ne fi mu ne nii gëm nañ ni sëriñ bi ma faatu woon adam sàngam faatu boo dee faatu comme nu def ñu daalaat waa bisimilah daa ko am dama la am waa léegi bu laa ko amee ñu man lay jéem ci kaw suuf di def di jëriñ sa borom dañuy faj sax ay aajo da ngay gis koo xam ne subhanahu wa taala day am aajo aajo bi yow loo xam ne ji yàlla lañ ko war a ñaan mu daal kay loxo alors que ñu dañuy dégg publiquement ci rajo yi yaakaar seen diw surtout aw tur subhanallah dafa dañuy yaakaar ci bari yàlla subhanahu wa taala kooku yàlla yaakaar leneen moo wéeru lu dul yàlla loolu dana daanu daanaka waaye yàlla subhanahu wa taala ya'mal hawla wa ya'mal masula ku yooyu ci moom lay jël ay nit jàpp nañ ne ne am na ñoo xam ni ba léegi ñu ngi faj ay aal dama lay waaj dama ko wax ba déglu benn def ngeen waaj ci nit ñi ak ay mbir yoo xam ne subhanallah da ngay wax ci biir nit ñi léegi ñoom kenn ñëpp ko kenn dana leen ñu muusal waaye na musul mu ne leen benn kii ba mu tudd aw tudd ma ne benn jigéen dana tëdd ba guddi ab kàcc daal di koy def saa yu daal dugg ci néeg bi fekk ñu ko déggoon am nag yéegaale ko ay or ak yu nangam yu kenn xamul fekk fa sax jiw ma wax a dëgg loolu wax dafa daal ñu am sax ci ko bëri mu ne ma xam ne su ma yuuxoon musiba dana am ma daal di xool ma ko ma ne ko jiw saa bi dugg na sama néeg te ñu ngi ñuy xool yi ma dégg caaxaan bi wala euh, bas bi su ko yóbboo toog bopp jiw kenn mu ni ko sama ne ñoom kat ñoom ngànt waa bi delluwaat sama ne ma yuuxu daal ni ko yuux saa yoo jiw dàq na mbokk yi yéen saxal wallahi rabbil alamin loolu amul de loolu amul de billahi alladi la ilaha illa hu walladi arsala muhammadan bil haqqi loolu amul de amul de nit ñi ci boppam dañoo aajoo ñu leen wax li leen seen borom wax bu ci kenn nekk di wax maam wala baay ku ne am nga maam ku nekk maam am na jaloore yu def waaye jaloore yi maa ngi ak xaayal yi fi lu jaloore yi nag bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu ak la nga xam ne suñu borom la ci moom loolay jaaxal bu mu demee ba ay di am maa taxal ci ab photo jiw de moo wax ni moom bu loon a jut moom la ku ko woon photo mu la wallahi da waray jaaxal Muhammad ibn Abdillah nga xam ne wala yàlla yéen ñoom ci ñun damay wax nga ko boo ko wëree bu biir innaka laa tusmiu almawta wala tusmiu addua umma addua ila xarit ba kii dund mooy gis waaye bu baax doo ci yéen ko yi kooku am na lu ko bëgg allah xeer barka nga xam ne moom la ñu tuddee benn comme ça ku ma demal sa saa xam bopp loolu loolu sa sama bopp rek kenn ku ci nekk am na lu ko bëgg mu la saa da ngay gis ay waxtaan ak ñu jàpp ne jiw sàngam moo tuddee aw turam juróom-ñaari yoon ba mu doon am ba mu doon jëloon lan la tuddee baax nañ ko xam da lay écrit man lay koo doon écrit ndax la lay doon écrit mooy loola jëm nañ ko sax di xool ba bu génn fii ak daal di ko xalaat bu sali bu fekkoon day sukki njëriñ wala wala wala ko def ko kon moo tax daal nit ñi fal ci boppam dana war a xam ni lii ay jaaxaan ay naan ak kanam la loolu wérus am na ay yoo xam ne jàpp nañu ne jiw dañu bàyyi ko te xam ne ba ñëw rek dañu leen a delloo déedéet allahu akbar Muhammad ibn Abdillah Fall tëdd si ron ko boobu comme tëdd Fall ma doom yi nga xam ne jege na ko lool bëm ni ku ko méttal maa ngi leen metti woon jàmbar ñi am bakkan ci wuutee jigéen ba toog bi ba juróom benn weer ñagat ñagat ba seen diggante ah dama ne ko amoon ku dee di génn rek la ay Muhammad la génn saxaaba yi am ay jafe-jafe ci diggante ngay Usaama war a dem Abubakar ñii ne leen ñii lu dem yow dugg ko ci diggante ay saxaabaam bu amoon ñu léegi rek ngay war a ngay war boobu kan ñu doxal tuuti saxaaba yi commencé am ñuy musa di génn ci lislaam ndax nee nañ asaka bu ñu ko joxee asaka bu ñu joxee génn ci lislaam ñu ne nag yéen lañ ko doon jox yàlla mu xul yéen am waa yi kon ñu ñu daal Muhammad kon Muhammad bu ñu ko joxee ba ko mu ngi am ay saxaaba yu bari dee def dama ne ko amoon suñu génn rek dana xam ne génn naa ak yéen saxaaba yi wuute ci seen diggante ay wuute yu métti yoo xam jur na ay jafe-jafe ay junni junni saxaaba ba ànd jiite na la jëm fële am na ñu àndal ànd jiite na la jëm fële am na ñu àndal ba ay junni junni jullit seen i benn sax ci ba wuute boobu seen ànd bi leen koy dama ne ko amoon suñu génn rek dana naa tuur benn moom génn rek dama kon amul ci baax yu génn déet kooku am na lu ko mel ki nga xam ne dafa nekk baax kooku ay yaram teey la ay yaram teey la boo koy ñaan yaa ngi ñaan ay yam yoo xam ne yu fënal la ay baaxal baaxal ya ñax yu fënal yoo xam ne kooku bu amal njëriñ wala lor bu muy fënal bu xëttal kenn ba ko doon jël déet alhamdulilah léegi nag nit ñi ñuy yeewu tuuti da ngay gis koo xam ne dañ koy nag ca caaxaan yooyu di ko saa bu sax si sax di ko waree si mu tudd wala bi dañuy yéen si gis nga gré boobu ñu tuddee réseau boo koy nag nag kontaan boo koy bàyyi bàyyi kontaan gis nga réseau boo ko najee nag ko di bu fekk ne ko gis ñu ne ci sa tëdd yaa ngi sa réew loolu mooy nag mooy nit ñi ci boppam soo leen jëlee di ko leen daanu yàlla dañ leen koy jaar di leen toppatu di leen gëmloo ni sama maam kese la sama maam kese sama baay yi nga jiw moo yore njëriñ yi jiw moo nangam déedéet loolu nag nit ñi suñu war a ko leen jënd ah waaw léegi waa kër moom jiw ñoom jàpp nañ ni jiw rek nga leen ah waaw waa kër moom jiw ñoom xanaa waa kër moom loolu ndax ñoom jàpp nañ njëriñ ko xamal rek kon nit ñi comme ñoom ku ko leen jënd seen bopp lay dugg ko moom suñu war a ko dafa am naa su xaw ñi ku leen dama xam na leen dara kon amul kenn koo xam mën naa utili gën yu ko naan la yàlla am am doom dina tooy mu doon yàlla mu ci riba mu ni maa ngi woo jiw subhanallah xoolal koo xam ne yàlla rek rek wallaahi yàlla rek la ko wax li nga toll ay jur yoo xam ne bu wéetee boo xoolee ak boo xam ne fi yàlla di wax subhanallah summa ginnaaw fi yàlla jaar ak doom fi yàlla jaar ak ñii ci biir yaay summa ak sabila yasa yoon bi doon jaar ba gën jàppalal yàlla rek ba doktorunun ağırlarına bunu fikirdi. Dayına doktoruna tasavvuf. Böyle hadikandı. Allah doktor bakmayı kaldı yani. Ne zaman dua edeyim? Allah Allah. Sigara ne yalla mı edeyim abi? Tanpa edeyim ya ukal var vereyim diye dedim. Bukan kau memang kira tu, Allah itu dia. Wajib. Amma doktor bakwa kami di wala al-alim. Ini kita nak berikan posisi. Mungkin ini gaya ini kita tahu itu kan. yéen i mag bi def na safara di ko xaar xaar nañ jàpp xool fu mu toll safara di ko xaar mooy yéeg-yéeg ba yéeg ñu jëlee ñu fekk na ku ne am na lox ba mën a dégg comme ma yor sa bi yow li mu baax def xaar moo tax summa amaana yow ko akbar summa di daal daal am solo kon amul kenn koo xam ne dañuy laqatu ci moom dimbali ci moom da ngay dégg ci boo dégg ko nangami yoon lii boo ko defee lii photo boo ko defee nangam nangam boo oh, yooyu yëpp walaay ay caaxaan la déedéet ay caaxaan la dama ne yeneen sax ay saxaaba boo leen dund la dee déedéet da ngay dugg ci oto yi da ngay gis ak comme que lu tamit xam nga nag on a loolu on a fait on a on a am nañ bés bu bëri ñu wax ay kadi déedéet on a fait on a on a wallahi jommal nañ seen mbokk yi daal ay kadi. teewul nga gis nga maanaam si teewul nga gis dafa diilal nga diilal teewul nga gis dafa doon mais que yow ñu jàng arab sax soxna dañuy jël ba bind lu ma xamul na léeg-léeg it ñu bind loo xam ne wallaahi ay ay dalay yàlla fatina xoolal fatina fatina fatina ne mooy boo xaaree taal dara nga ubbi ko taal la ba muy taxee am na mbuus bu weex bu fa lale muy adresse mooy fatina su borom nee na ñi ngeen di jàng te duñu yàlla wala yuslamuna ah ñi nga xam ne ñooñu xalaat ne doo jaamu ci yàlla laay ko xamoo la xati de kenn du leen xool lu xool ñu xat yi ngeen ko xam ne xët meer lay bind nga dégg ñu xët meer mooy mooy xaj ba àndoon ak ñoom ñoom ñoom subhanallah yow ay wax yoo xam ne yow dara doo xam ne mën nga tuddee kon yooyu ay mbir la yoo xam ne du mooy njëriñ waaye li ngay njëriñ ak wax kooku mooy yàlla subhanallah loolu ñu war a wax ñi nga xam ne yàlla jéem ci na leen xam te ñu mën a leeral lii leen war a wax waaye waxu maam yi waxu maam yi déedéet ku ne am nga baay ku ne am nga maam ku ku ne sa maam lu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk solo am na njëriñ ci kaw suuf am na lu ci def waaye yàlla Muhammad la yónni woon suñu suñu ko bii loolu ci suñu mooy ñu bare ay wax kenn ko nangu déedéet xam nga am nañu baax lu ragal yàlla bi ne ci am nañu baax lu ragal yàlla ñu dëgg ñu dëgg ñoo xam ne dañoo jeex xeet ci bëgg yàlla ak topp yàlla am na ay waaw xoolee na fekk ko waaye nag jàpp ni ñooñu ñooy utilisé ñooy indi ay njëriñ mooy ndax ay wax déedéet loolu amul loolu ku la ko xam lay nag borom bi moom dalaa ngi wax di nekk ci suuf soala garab yoo wax yàlla gaa yi nga xam dañoo jàppoon ay jëndi yàlla suñu borom bi fa tuutibuhum fiiha wal ghaawuun wajuruhum bi dinihi mahmuud yàlla mu ne ëpp lan leen ñoom la tëmbal si biir sawara ak mboolem ñi nekkoon njabootu Iblis après sunu borom ñu xaalu wa hum fiha yaxtasimuun na nga yuuxu amee toog ci biir sawara na nga naan sallaayi gis nañ ci yàlla in kunna ñun da dañoo nekkoon fii balaalin mu bii ci tànk ci ruy ngeen wax lu ne tànk ñu ne id nusawwiikum bi rabbil alamin jamono ba ñu jël ay ak di leen xoolalay yàlla di jàpp ni yàlla man man nañ ko ah mooy nañ ko maa xool daal ak yéen a ngi ciy ñëw ci ñu ñeneen ñu ñu di kaloo ay lan yu ñu tuddee kenn tey loolu ci ay lan yu bi ci ka ni naka la ni man taxaw ya xool ni man ku ma xool du ko aajale ku ko xool du ko aajale xool ba ni subhanahu wa ta'ala ila kulli li muy gàcc li muy gàcc kenn ku muy xool ku ma du aajale loolu yàlla déedéet xaar xaar Muhammad xool bu dugg àjjana déedéet amul ku ma xool dugg àjjana ku ma xool dugg àjjana kon kay jël su muy jaam yàlla lu bindee loolu waral ndax ci muy baax ñi ñuy wax ni ñoom la ñuy baax di leen ko ndax am na ci kenn ku ma sa dégg muy woote woon naa ku ma xool dugg àjjana ndax am na ci kenn koo xam ne dafay digal ne ko ko naa leen bu leen jaam yàlla bu ñu nee naa leen maa leen loolu ko xam ne amul déedéet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabaam Muhammad ak beneen jikkale bi mu amoon jaamu leen yàlla dana tam su ne dee man laa keneen borom bi am doogal ma ku ne yërëm da ngay yërëm ah ku ñuy dugal da ngay ko mën a jàpp ci yow su fekkee ne da ngaa am ba amoo lenn la yàlla ma diggee wallahu kama tanfa'u bi shafa'ati shafi'in Allah nga yàlla ne kenn la ma dara ndax ñu mën a jàpp ci yow lool te li koy yàlla waaye jàpp na yoon ndax amoo lenn lu baax kon xool ko dara nii fama lana min shafiin tey day ñoom amuñu kenn ku leen nangu wala sadiqin xamim amul ci nit ak xarit boo xam ne kii wala di jege wala di kon mbokk ñu xam ni lii day mooy wax suñu borom suñu borom ni falaw annana karratan fanakunu min almuminin dañuy gaay na fekk yàlla delluwaat ci ak ñu dindi dañ tax leen bokk ñu gëm waaye bu waaw ñu koy wees na muus wala suñu borom ni inna fi dhalika la aaya ak waaral fukk mi ngi ci lii ah wa maa kaana aktaruhum mu'miniin waaye li ëpp si nit ñoom duñu gëm mbokk yi ci yàlla kenn ku nekk nag ci xelam ne yàlla rek tax ban différence moo am ci diggante bokkaale ga Abu Jahl ko defal Abu Lahab ba yàlla ñaan leen ci alquran ak nit ki nga xam ne tey dafay ñëw ba ci ab armeel bu koy laaj nit jàpp ne laaj boobu moo koy tuuti xam na mbokk mu ma nekk nee na ma am na armeel yoo xam ne sax moo yore dépense dana lu am ay affaires yoo xam ne dafa am suñu yore ndax nit ñi dañ koy taxawal ci xaalis bi ñu dara ay affaires yoo xam ne nit ñi dañuy tawaaf comme ni ñuy tawaaf ay taxaw ay affaires yoo xam ne moom daal da ngay gis ñu jóge fii am soxla war koo ñaan yàlla wala wala dem ci jàkk ji ñaanal doo ko ñu dem énergie waaye jeunes yu ci dem ba moom sukkital armel nit xool naan xoolaan mu la lal ne leen li la la li bari waa joo xam ne boo ko waxee woon ay jaar ak i janax ak i kañ ak i ndaw ñoo ko ñu lekk aw yaram yéen ak ku mën a doon noonu lay demee ak ku mën a doon laaw damay yàgg yi ñu ko dee tuuti ci yàlla ñu ngi si dëgg ba si du man ki daan lay jaay soble ki jaay computer ki jaay butéel ki jaay lee ke roose ji ki gaale ki defle ki defle sabi nam di laal ñëw sabi nam ñëw la ñëw saa boo xëyee yaa ngi am ab néew am na metti yow yaa am la leen ndax àddina noonu la ba tilkal ayyaamu daawiluhaa bayna naas sax yaa am leen neex yàpp doomu aadama yi duubale ko nekk nekk la ka màgg màgg la ka xees la ka kumkaleel loola daanaka sax nga koy defal ajab sax yi ngay gën a duubal waaye doomu aadama bu baaxul bu ne bu ubbee ci suuf dafay sax yi lekk kon kooku nga xam ne amal na foofu yàq yi teel yàgg na ko kenn du ko ñaan ak lu ko baax baax ak lu ko yàlla defal yàlla ko daa aadama yi ñaanal ko ah moo tax nit ñi dañuy wax ba pare weesu da ngay dégg ñu wax dañuy wax lépp da nga jàpp ni kii mooy yàlla ñu ne bu leen baatu ñaanal bi ah mais yow dafa naan dafa ko xam ne ku la woo ko tam muy ko ko yaa ko ko ko ndaw ci nañu ñu ko yow koo xam ne daanaka day naan naan yegg na fu kay koo xam ne yow day saa dafa leen dugal àjjana mais wax dëgg yàlla lu koy ñaanal lu ko bàyyi day ñaanal ne àjjana na mu àjjana ko nit ñi dañuy wax nit ñi dañu wax ko ci laa ko xanaa mooy li ngay tàmbali wax waaye bala ngaa ñëw xam yooyu dina ko mos a yóbbu kon mbokk yi caaxaan yi ko bëri kooku nit ñi dañuy delloo ci leen yàlla sëñ bi subhanahu wa taala loolu mooy rek nga leen ko yàlla bu kopp wax ko ci leen daal kon mbokk yi bokk na ci musiba yi mooy doomu aadama jàpp ni ak wér yi ngi bàyyi su seetaan ci baax ci wér da ngay ñëw nga ñaan yàlla sama feebar bi sama nangam sama nangam wax ba yeggal dinañ daal di dugg leen daal di wér kon nit ñi ñu ngi saxee léegi ci suba léegi léegi ci suba bi ma génnee pour ba ba noppi damay génn ma ne xaaral ma ba pour wane nit ñi ci kaw ma génn ba tolloo daara bi fii ba tey genn waa waaye maa ngi ko dégg mu gàtt mu ñëw ba ci nag dama la loo xam ne maa ngi soxla mu xoyal mu ñëw ne ma ku soxla xaw ma kuy kuy seet kuy motul muul kuy nangam nangam ku soxla ko fee daawa wax wax wax wax day yegg wallahi bëgg ma ko nag dama daa xool xool xalaat naa ne sax wut bu ma ko waxee xaw ma xaw ma ko jàll kon dafa mel nit ñi ne dañ ko def ay nit ci ba ñu wër ci soxla ngaa dugg jiw eh loo jël lu ko waxoon loo jël loo ko jël ak bopp est ce que dama koy ñaan yàlla jël li wala sama bopp la ko boo waxoon loo jël kay jëlal ko bopp boo waxoon loo jël ni leneen la sama solo ko ji ay saaxaan waaye kon doomu aadama yi ci boppam jaamu yàlla ji ñu jaamu yàlla saa lu jëlaat ay kenn ku dul yàlla bokk na lu ci mel ni réew mi ci yàlla da ngay ne la ko wala bëri wala ginnaaw bu weex wala nangam ku war a nit ñi fii kaw lan moo tax ndax daa am eh, sëriñ yi ñoo ko digal na ngay nangam nangam wallahi loolu seet la loolu dara la julli ko def ndax ak baax ko la lay ni daal subhaan ko fuñ ko dara war a wóor ko boo ko lekkee lekk la lu bon lu yéeg fekk tan mu dee fekk tan mu dee wallahi nga lekk ko te muy lu nekk nekk lu xaar moo gën a yàlla nga lekk loolu ginaar bu weex ginaar bu ñuul maa baalu ginaar bu weex bu ñuul si xabaar xabaar yi ginaar bu mënoon dara bu doon faj aajo dafa ngeen moom dana xoole dañuy si dundam di ko dama ay laax di dama ay laaxam ah di jeeri ay tànkam kooku xam dara fas yi nga xam ne saa jël ko ma yàq boobu ñun ñu nekkee ca kaw yàq bi ñuy taxaw fas bi ci laax xam nga ni yàq bu doon faj dara fas ba mu yéenee ca moom la koy fajal lu yéenee ca moom li nga def yow fekkoon am na lenn njëriñ bu lay defal subhanallah dañu gis doomu aadama ñuy dund dund boo xam tey jii bi ñu def tey boo ko amee woon sama yoon doon fekk sax damay ko xalaat. ndeysaan ma jël benn ñaari yoon ci loo xam ne laay ko wala leen sax kon ñi ñi koy def moom ko sax du ma ci naan xanaa moom ci li ma yaakaar. yi jàpp ni loo leen di naan ñun de ak ñoom travail leen dal ñun de xanaa oto bu ko bëjee mu ñun de xanaa seen kër baax ñooñu xanaa wóor leen daal fa ñu liggéeyee mbokk yi ñi ci moom bu ñu xalaatee dañ xam ne yéen yéen dana am loolu moom ci diin ci suuf yàlla xam ngeen luy diin lii mooy lii may wax lii may wax dafa am ku am màggaay boo xam ne màggaayam daa tolloo kii ba nga xam ne su ma tuddee turam day wane ne kon mbir mi kat li yëpp la kon yàlla ko ko war subhanallah da ngay dégg ku ne la ci te nag ñi dañ koy baaxoo da ngay dégg ku ne jiw jiw kay bu la génnee sëriñ bi la ko xam saa ngeen ko bu la génnee ci billaay day gis nga kon yàq na mu yegg lii naa ko ci biir dama ni sama wax na doon fii neex laa ne la sama amal gis nga yéen yàlla saabam dama bañ la ñu dana wax bu leen ma tey eh, comme ni la laa yoon tegee Isa ni Mariam man jaam yàlla yonent yàlla bu soobee yàlla yonent bi allahu akbar loolu sa baaw kon man moo ko soobee yàlla bi maa daal di ñu ne ma suba mu xamul dana ko fekkee mu xam dara tuuti bu soobee yàlla liggéey suba dinaa def nangam inna lillahi wallahi loolu si waxtaan la moom la ñu sax rek Mouhamad bu soobee yàlla yeneen bi laa kenn du ko wax bu soobee yàlla rek loolu yëpp du ko maanaam allahu ahad bu soobee yàlla rek ba naa bu soobee yàlla ngelaw rek bu subaa dinaa tukki mu ne ko déedéet ay jaaxal nañu ilahi rek ndax dañoo ko def morom yàlla bu soobee yàlla rek parce que xaar ma jiba morom la yàlla da cee mu ne ko bu soobee yàlla wax loolu gis nga mooy ci amal ni man kaana xaaliban falyaxlif billahi aw liyasmut dama ku mën a doon laa waxuma ay jiw ak jiw waxuma lu mu sant ñun léeg-léeg jiw xam nga léeg-léeg mooy Muhammad laa sallallahu alayhi wa sallam su fekkee da ngaa jiw si moom wax naa waxtaan ak yàlla mu xam ne bii Muhammad la Masamba Baye Baale Baye Modo Baye Alaay ñoom ñëpp a ci bokk mbir mi kenn leen war a jiw mooy yàlla moom lañ war a yaakaar moom lañ war a wéeru léegi nag saa saa nit ñi ko bëgg tey man mii soo yaakaaree man maa ngi ci dépense nga ñëw sàkk ko ci man loolu yëpp loolu yaakaar bi ci ko yaakaar bi ñuy wax mooy mbir moo xam ne yàlla moo ko mën subhanahu wa taala wala def def yàlla da ngay bind yow laa ci yaakaar ngay muy jàll ci tey wala bàyyi di dimbali ma waaye tey maa defal maa defal yow day jàll ci yow dong laa ci yaakaar allah Ibrahima la ko wax ila maritu su ma xeebare ko boole si su nekk kenn la muy yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi suñu borom inna alladina tad'una min duni illah ibaadun amsaalukum ñi ngeen di woo di leen jaamu di leen yàlla ay jaam lañ comme yéen fad'uuhum woo leen fa yastajibu lakum min in kuntum saadiqiin yow leen kenn du innaka laa tasma'u al-mawta wa laa tasma'u summa ad-du'aa ilaa man yad'uun kon mbokk yi lan ban jarabi mooy bokkaale yàlla ba tax jaaroo kat di ñëw bu ko rek wax xaalis fekk bi ñëw bu ko rek loolu mu daal jigéen bi ñëw jaay boppam ak li def li wax ak kon su loolu mu xew ñu daal bokkaal kat yàlla yi su borom bi solo ñàkk solo ci mu daal mbokk yi lan mooy ci bokkaal su borom du ko baale xoolal sa yi ngay yëgee ko kat kenn wax yi di ci ñun kenn rek daal dana ci loolu te léegi bokkaal yàlla moom deuxième position la la première position la woon bi ko dañu bokkaal yàlla subhanahu wa taala bañ a bokkaale yàlla subhanahu wa taala te léegi ba sa xool bi bul jël lenn luy jëlee bi yàlla jox ko mën léegi nag soo xëyee am lu ñu tuddee dëkk bi mu gën a jàngal diine dina ñu tuddee dina ko lu kenn ñëw loolu am nga def ko bu fekkee yéen xam nga yéen xool naa la ko mu lay jàngal diine di la xamal di la gindi wallaahi nit ñi ñi war na noo musse xoolal média yi xoolal télé yi xoolal rajo yi xoolal anniversaire yi am par at fan nga ci mos a dégg ba mu nekk nga dégg ñu jàngal la fan nga ci mos a dégg nga dégg ñu jàngal la fan nga ci mos a dégg nga dégg ñu waaraan yenn nit ci nan jàngal la ba Allah dara ñu déet sama baay sama maam bam bam bam bam la yegg moom moom maam maam jiw bam la yegg waaye ku nekk sama xam nga ku daje ñu dund da nga wax da nga ku nekk sama xam nga ku daje ñu dund dafay jàngal da nga wax waa ak lu mu kon yooyu doomu aadama du moom la ñuy bànkoo ah lii nit ci dara bànk su ma la gën a umma su xarala la kon am kon mbokk yi foog ñu jàng am kon xëy na am na doomu aadama ñu léegi di jàpp ni wax wax ci taxaw yoon lii kon su borom sir que yooyu umma su xarala la ak xarala woo xam ne mooy leen yàlla maa ngi sabal yóbbu leen leen loolu wala umma nga def yéen yéen ak yéen ñu ngi jëf wala ba kenn la Allah nga xam ne daal yàlla du sama doon déedéet فإذا نفخ في الصور الله يعلم فلا أنساب بينهم أكثر منه ولا يتساءل كيف ولا كيف ولا يتساءل كيف ولا أكثر منه ini lah yang sangat keluar ini. Kesalahan tiada kesian, dengan tiada kes, Allah ini kerana ومن خفت موازينه وتتمر ثيابه لما يكون سمى أدوانا الشمس فأولئك الذين قبلوا أخذوا في كل المخالفين ஜீவாத்மாவும் எல்லா இருந்தாலும் முழுமையை கடற்கொள்ள yàlla rek lañ war a ragal fekk ci ci yàlla lañ koy war a def biir ci yàlla lañ koy def mucc ci yàlla lañ koy def damay xeet yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy def muy xeeti bokkaat yi ko fëkkili ko loolu amul benn sens amul benn njëriñ su fekkee jël ak fee jël fekk ko tëddee kooku loolu la suba la fekk ko fekk jël dafa ngeen ko amul lenn muy benn ñu nekk pour mu xamal ci ay béy jël ba kenn ko nekk sama suba ah mu tax benn benn borom xam-xam teel maa ko dégg misaal mu am solo lay jël mu ne benn waaye dafa dafa dafa yéegoon ci moto ñu ñu kaw si ko xew muy daw di daw di daw ba mu yàgg moto bi daal mu ne waaye nag yàlla dina mucc ci accident la lam takkoon rek moo ko jam ci biir wallahi sax mu am ko kenn bu ko léegi dafa ko daal mooy xoolal rek li na la mooy dox dox kii moom war laa liggéey accident bi ñëw moom xit ne wala lul moom mu gën a dem law kaana yamliku durra wala nafa la nafa kamila yoon bu doon njëriñ ak loolu mooy que moom keroog mën naa jëriñ waaye déedéet ko nit yi dafay wakkilu ci yàlla jëm li yonente bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam xoolal coono yi ngay def da ngay dem ci bàyyi bi mu fasal la li fasal la fasal la jox la dara ak ah, yéen jëm ko ay sàmbara wallahi rabbil izzati wal jabarut jëm yàlla bi jàngale na ay ñaan yoo xam ne saa boo ko ñaane la ak saa xale bi naan yàlla aaree. waaye ñu ko kalimaati billahi taala min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma léeg-léeg ci xale yoo xam ne dañ ko takkal boo ko fekkee man la li doon jéem a jiw kooku nu muy dundee man kooku nu muy amee yaram ah non boo ko xale ci ba parce que li ngeen rek moo fi ci ba ko déedéet ñaara ko yàlla subhanahu wa taala ak allah al azim ak al arshi al azim ak yashir yéen la ñu nee na saa boo seetee ku feebar ci ak yéen comme ni mu la jamono jooja boo ko ñaanee yàlla mu jublu bàyyi nee na moom boobu mooy fekk xala yi ñu takkee xala bàyyi yooyu fekk xala déedéet takk xala du nekk fekkim xala du ci nekk ñëpp war a jàngi waaye saa boo xam ne fit lay mel noonu am na jabar am na wallahi bi bismillah su la dina ko ci loo xam ne yow doo ci sa la xam ne day dafay parce que loolu yàlla discours bu ñuy xayee waaye daf ko ko ko ñu jëriñoo benn des mooy wax bi ñu xam ne maanaam doomu aadama yi seen muqaddataat yi xamee yi nit ki léegi nag ñi dañ ko commencé leeral yu bëri comme ko nu ma waxee da ngay jëfandikoo yu bëri yu dal ko ñuy gërëm koo xam ne mu xàggat lañ ko defoon ak nit koo xam du tuur du sol du teela moo tax it sëñ bi day tànn sax loolu la loolu yu gaay ko wax sëñ bi day tànn waaw yéen si xel dana tànn comme day yuural sax mu ngi naan mën nga day tànn waaye sëñ bi day tànn boo xoolee dafa am lu sëñ bi mbokk ñi ñu añ jumaa di ko ñëw li ma wax ñu ñu xam ko li ma wax ba yaram wallahi ñu ngi wax ñu ngi jàpp lu tax ndax ah nii ak li la yaakaar ñu la foog ñu dafa dëgër dëgër yëpp jàpp sama ñaxaay rek dafa tey yéen dama dina ko nii lu rëbb sa ci ñu baax ci suuf rëbb sama ci ñu baax ci suuf nga gëleen say tànk ma gëleen sama tànk nga ni salaamaaleykum buusu ma ko ma ni salaamaaleykum buusu ma ko ah yaa gën a la yéen itam seytaan mu ne ah kon soog si dëgg dëgg dëgg yàlla bi nee na képp koo xam ni dégg na woote amul benn tànk ba ko ko di ko amul ay na sax ah mu yoon lay wax dëgg yàlla dem ba man sa waay génne sa mag bi bii sukk ci nga ne entraînement loolu ma di fekk mosoon naa di benn ci sama mbokk ma pour wax la nit ñi léegi ñu ngi yeewu waaye ne ko bokkal ma sama daal yow saa yu di maa kaa ci nekk yaa bokkal sa bopp ba ñeenti sene la wax na dëgg su ne yaa bokkal sa bopp ba ñeenti sene la kon léegi doomu aadama bi ñu ba ñooñu la xam ne dinañ ko xam ne jaamu yàlla ragal yàlla boo góorlu dina ko dugg ci politique nan lañ jàppale ni kaay yi nangam nangam suñu borom daal di commencé dama xam nit ñi kenn respecté leen pourquoi parce que li ñu diine daa war a yem ca lan war a yem waxuma la lu wax bu la dégg bu lu ñëw lu jar wax wax nga wax waaye yemal nga war a yem li may jeexale mooy gis ko boppam da lay wax nit ñi ñi gëm gëm yi ak motivé yi def waxtu sax ni ci jamono yi daa jaar pour waay yu wàccee gaa yi ñëw dugg dugg ci l'islam li ñu tuddee yeneen bi ne bi ne nit ñi ñu ko riba bu yeneen bi baaxul sàngara yent bi laaw nangam yent bi laaw ñi ko yent moom suñu yàlla dañuy tuddee rabbam noo koy fekk ñoom dañ dañ firm moo xam ni moo raw muy man comme la tuddee ko rabba di ko jàmm dañ ci amoon ay gëm-gëm yoo xam ne laal yéen Sénégal sax ko yoo xam bay yee kala boo xam yéeg yee bor yee déedéet wallahi boo wàccee ci yàlla nga yéeg ko doon laa yëngu ko illa laa yëngu ko jàmm rek nga dem boo wàccee am nañu ay tey yoo xam nañ ci dara yéen yàlla ñu ne ko wax ba ñu koy def mu ngi xanaa xam ñu ngi mu ngi yóbbu yoon yàlla ah da ngay bokk naa teewaat bi yëpp a yàlla te la baax nga gis ne wax dama yoon yàlla bi ne laa dem de ñi kaay yi ko kay na naa yow nga sa gërëm sa bopp yoon bi ne laa dem de naa yow nga sa bopp yoon bi yow maa dem loolu ak mu ngi lay gis soxlaa ngay gis xam ngay dañuy jubbe wala ñoo gën daw ci xëy wala xaar boobu ndax nee nañ laaw nga rek mooy yéen mu ngi leen di soxla daal di gaañ teegeel ma ci ma lay dem ñu ngi ko la mu ngi may ma rek ma defaan loolu léegi mu ngi leen may ma ma defaan loolu ñu ko gis la mu ngi leen jël seen nit daal di ñëw ba jub sëriñ bi ñuy wax la rek di kut li ko doole ak li jaaxaane di tay taylu génn mu jaaxaan di tay taylu ñu ngi sax ay bànk kay yuuxu di yuuxu wóoy wóoy wóoy nit ñi daal li wax léegi néewal nañ leen rab la laa mooy dee daa yor ba ci xaalis bi gis bisimilah def nañ ngeen ngeen laal bu ko defee ngeen jiyee comme yu waa ji jiyee léegi mu ngi leen di kàddi kàddi rek di kàddi kàddi moo ko laaj di kàddi kàddi rek di kàddi kàddi ba taw bi kur mu ngi leen kon lu ne ko da ngeen foog ne la baax la dama la doon wax ni ay mois de xabaar yoo xam nit ñaa ko gëm dama yàlla ba ngi day ma toog xale ko daa leen xaaj seen solo ñu fatal fatal ay wax ay toj ba ñu noos waaye ko ci leen dóor gëm ñu njëkkee konoon bii dafa wér njëriñ yëngu ci waaw xool ak kër la ak nit la xam nga biir la la bi la yaa bi la wax xam nga ko ci nga nekk mu ngi raajatul aqida ku wér ak sax ragal yàlla dama ne dama ne dama ne yàlla ko ko wax dañ ko ci dëgg la sud ci jàmm rek ay dara biir la bi la yaa bi la dara dara dara dara musa yéen ko bokkale dama ne da ko woo mu ngi ci xam nga tànni bu la yéen ko daanawale bu la def bu la wut. xarala yi nga xam projet yi boo amoo ay njëriñ yoo xam ne ci laaj la seen kon loolu da nga delluwaat ci la ñu ci jëm. àjjante ko nga ko waajal nga xam ne ñooy am bàqam ci kër yàlla yàlla boole ci ñëpp. suñu yaram yi day mënta dégg tàngooru métti moom ma nag dégg solo la yàlla ko gis. ñoo ngi ñaan yàlla yàlla gis suñu xol lu jëm ci mbaa ñu mën ci jëm ba kañ ko baax wàll ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر المؤمنين وتقوى دار مغفرتك والسلامة من كل اثم والغيبة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه